salaam salaam mbokk yi salaam salaam salaam salaam mbokk Sénégal mbokk Afrique nuyu naa leen man la Guy Marius Sagna nuyu naa leen man la Guy Marius saña Guy Marius Sagna secrétaire administratif euh, du FRAPP euh, à la technique derrière la caméra euh, notre camarade Aliou Gérard Koïta Euh, coordonateur euh, de FRAPP departement Kolda et membre de la commission communication mbokk yi partage partagé leen vidéo bi partagé leen vidéo yi mbokk yi dañ leen koy ñaan ngeen partagé ko ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tour ak seen sant nuyu nañ leen bu baax a baax di yaakaar ne euh, vidéo bi di ngeen ko seetaan ci jàmm ak salaam di leen di souhaiter un bon dimanche aujourd'hui c'est samedi non samedi un bon week Euh, ngeen jégal ma en fait euh, euh, ma mémoire mon cerveau est tout retourné depuis ce matin dégg ngeen ñu ñuy wax ne ñu ngi région bu Kolda département bu Vélingara partagé leen mbokk yi partagé leen partagé leen ko vidéo bi ñëpp jot si population Pacour ñoo ñu invité à une manifestation bu waroon commencer tey quinze heures taxawaayu ñaxtu boo xam ne li ko tax a jóg mooy métitlu naxarlu spoliation foncière accaparement foncier aki moo suufu béykat ak sàmmkat bi am fële ca parcours junni hectare maanaam mille hectares la jël ci parcours jox ko benn nit euh, Oumar Sall. oui c'est un certain Sall. d'accord Oumar Sall. Euh, wa waa Tamba war nañ ko xam parce que foofu la dëkk mu fay def euh, ci suuf bu yaatu banaana ñu jox ko moom rek junni hectare ci parcours benn nit kase junni hectare comme ça te ñu juddoo parcours amul kenn ku am cent hectares ba ñu lay jox junni hectare pour mu ñëw xaw ma def fa ay banaanaak nee na pour auto suffisance alimentaire non non autosuffisance en banane mbokk yi li ñu wax dafa leer balaa ñoo lijjante auto suffisance en banane en papaya en mango balaa ñoo lijjanti ñu am mango bu doy ak banaana bu doy Sénégal li ñu war a njëkk lijjanti mooy am dugub bu doy mbokk bu doy bësi bu doy ceeb bu doy peut loolu mooy la priorité ndaxte fii ndaxte fii Sénégal banaana pour dessert la màngo pour dessert la papaya pour dessert la mosu gis sénégalais buy añee banaana buy reere banaana donc balaa ñëw lijjanti autosuffisance en banane ci Sénégal ñu lijjanti d'abord autosuffisance ci dugub ci mbokk ak ci bësi loolu lañuy ñuy ba pare soog a lijjanti dessert defe naa président Macky Sall dessert yi mu dégg ne xaw ma France da ko doon jox xaw ma tirailleurs yi te dara du ci dëgg defe naa dessert boobu moo des ci boppam ba léegi xaw ma da ko traumatisé xaw ma lan d'accord mu bëgg a jël suufu ay béykat yoo xam ne amuñu dugub bu doy amuñu mbokk bu doy amuñu bësi bu doy jël junni hectare pour jox ko kenn pour muy def banaana loolu xel xalaat na ko xanaa bu ñu nekkoon beneen réew sax ñi nga xam ne xëy na dañuy añee banaan plantain ndekkee banaan plantain xëy na reeree banaan ñu ne waaw mais Sénégal fii balaa ngaa lijjanti dessert banaana doo lijjanti dugub autosuffisance alimentaire ñun sax waa FRAPP dañoo jëlale autosuffisance alimentaire ñun lu ñuy wax mooy souveraineté alimentaire maanaam ñun Sénégal ñun Afrique ñu moom suñu bopp ci wàllu lekk ak yeneen ci wàllu ndékki ci wàllu añ ak ci wàllu reer ndax xel mën na nangu ñu jox junni hectare ci suufu ay béykat yi nga xam ne suuf soosu seen maam seen maamaati maam foofu lañ doon béy foofu lañ leen suul yàlla na suuf woyof seen kaw ñu nangu ko ba pare jox ko kenn pour banaana ci biir junni hectares yi sax am na mi am na juróom-benn dëkk loolu la waa Pakour ne du dëgg du yoon ñun waa FRAPP ñu feelu leen ne leen xëy na sax bañu ñu banaana bañuñu ñu béy mango bañuñu ñu béy papaya bañuñu ñu béy goyave bañuñu ñu am autosuffisance ci wàllu euh, fruit banaan mango ak ñoom seen waaye balaa ngaa lijjanti loolu nga lijjanti plat de résistance balaa ngaa lijjanti dessert comme Macky moom sans dessert rek ñu lijjanti d'abord añ bi bu ñu lekkee ba suur ñu soog a lijjanti banaana ndaxte banaana dundalul sénégalais banaana dundalul doomu Sénégal ñu feelu kon euh, béykat ak sàmmkatu parcours ne déet junni hectare banaana warul noot ay béykat warul noot dugub warul noot bësi warul noot mbokk ndaxte boo jëlee junni hectare ci ay béykat ak sàmmkat jox ko benn nit kase mais mel na ni yaa ngi rëy béykat yi yaa ngi rëy sàmmkat yi mel na ni président Macky sàll mu ngi condamné à mort à petit feu béykatu Pakour ak sàmmkatu Pakour et puis ëllëg dans cinq ans dans dix ans yàlla na yéex mais xaw ma Sall banaana bu deewee ñi ko nara a donn mun nañ wax ne mais seen juróom-benn dëkk yi mais ci junni hectares yi donc génn leen si wala damay jël seen waañ wala damay jël seen wanak spoliation foncière ci boppam moo doy Sénégal amul commune ci senegal bu am akii moo suufu béykat ñaa gis aki moo suufu béykat Bignona aki moo suufu béykat Kafountine xaw ma aki moo suufu béykat Kër Moussa aki moo suufu béykat Guéréo aki moo suufu béykat Dodel aki moo suufu béykat Mbaan aki moo suufu béykat ak sàmmkat Kignaabour akii moo suufu béykat ak euh, nu mu tudd ak sàmmkat fu nekk ci Sénégal Sédhiou aki i suufu béykat ak sàmmkat fu nekk ci Sénégal Saint-Louis Thiès Kaolack Kédougou Tambacounda fu nekk ak i mu suufu béykat ba kañ ba kañ président Macky Sall ak ñu mu àndal non seulement dañuy détourner suñu am-am ñun sénégalais di détourner les recrutements à la fonction publique ah di détourner suñu jën yeeg ak ñoom seen suñu géej waaye di détourner tamit suñu suuf dafa doy réew moo xam ne dafa bëgg a atteindre la souveraineté alimentaire dafa bëgg lu muy lekk mu koy béy ci senegal ay non di tàllal loxo bitim réew dégg naa ndeysaan yàggul trop Japon dafa may xaw ma ñaata milliards Sénégal pour euh, mu jënd lu muy lekk lu doy ñàkk fayda ñàkk jom Ils ont transformé notre pays, le Sénégal, en mendiant international. Ils ont transformé notre continent, l'Afrique, et sa diaspora en mendiant, en, en international internationale. lii la ñu wax ne ñoo lànk ñoo bañ léegi nag waa PACU déposé woon lettre ci préfecture ci sous-préfet sous-préfet mu tere manifestation bi sous-préfet mu tere manifestation bi lan la lay mu ne risque de trouble à l'ordre publique y avait plus de trente gendarmes armés jusqu'aux dents am ay ngànnaay bi ci seen nopp grenade lacrymogène fusil pistolet ñooñu mënuñu woon arme xaw ma taxawaayu ñaxtu bi mu ne xaw ma risque de trouble à l'ordre public waaye li mu njëkk wax mooy ñun respecté wuñu ñetti fan yi nga xam ne lu mu néew néew néew néew moo war a dox diggante bésu manifestation bi ak bësu dépôt bi ñu ne ko ñu ne ko sous préfet waxoo dëgg Moussa Fall defe naa la Moussa Moussa waaw sous préfet bu bu Pakour Moussa Sall Moussa Sall waxul dëgg et on a les parce que bi ñu déposé lettre bi bi nga xam ne ci lañ koy xamal ne dañu bëgg a manifester tey da dañoo ut décharge décharge baa ngi ak ñun à ce niveau de responsabilité qu'un sous-préfet mente pour protéger les intérêts d'une personne au détriment de milliers de personnes à ce niveau de responsabilité ba pare d'accord ngay jël loolu di ko lay pour interdire manifestation nga foog ne ñun doomu Sénégal ñun waa FRAPP dinañ nangu nga tere manifestation boobu ci ay fen et ñun ñu toog suñu kër duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñun ñu dem Pakour dem Sinthian Fally waa Pakour yëpp jël seen moto di ñëw gendarmerie gendarmerie bloqué bépp yoon buy ñëw Sinthiang Fall ku ñëw ñu ne la doo avancé ñu takk seen fit takk seen musóor laxasaayu ne dañuy manifester ñu dem dem dem dem ba toll ñeenti téeméeri mètre fi nga xam ne foofu la ñu may sàll banaana gendarme yi tëb suñu kaw lu ëpp fanweeri gendarme pistolet fusil fetal grenade lacrymogène ñu sànni ñu jàng yi tas ñu sànni grenade lacrymogène yi fépp ba pare nag ñëw di foncer suñu kaw ñun waa FRAPP dañ koy wax mu leer nañ ay weer a ngi nous appelons à la résistance résistance nu appelons à la désobéissance civile sànniwuñu xeer jëluñu ngànnaay tojuñu kaar résistance ak désobéissance civile mooy ñi ñu fal bu fekkee dañu bëgg a noot duñ ko nangu te dañoo war a lànk dañoo war a bañ moo tax bi ñu terewee manifestation bi te constitution moo féete kaw sous-préfet moo féete kaw préfet moo féete kaw gouverneur moo féete kaw président mënuñu nangu sous-préfet ndax bakkanu àddinam ndax ndax njëriñu bakkanam mu tere suñu manifestation moo tax nag comme waa PACU dañoo waxoon dañuy manifester ñu ànd ak ñoom manifester ndaxte ñoo ñu invité waaw te lu leen métti métti nañu lu leen naqari naqari nañu waaye lu leen neex tamit neex nañu lu leen neex te muy lu baax neex nañu lépp lu ñu bëgg te muy lu baax te muy jëmale askan kanam ñun bëgg nañ ko donc mbokk yi partagé leen partagé leen lii moo amoon tey ñu kar ñu ak seeni oto ñu kar ñu ak seeni gendarme ñu ne ñun duñu taxaw waaye loolu sax mu ngi commencé tey suba fi ñu fanaan lañu ñu commandant de kunkaane fekk naan ñu yéenay waa FRAPP ñu ne ko waaw ñu ne déglu leen ma déglu leen ma ñuy yéeg suñu oto dem ñuy dem parcours ci parcours beneen oto gendarme naan lu ñuy taxaw lu ñuy taxaw ma ne ñoo lànk ñoo bañ ñun waa FRAPP du ñu nangu fii Sénégal ñuy tongali waa FRAPP wala ñuy tongali waa PACUR wala ñuy tongali ñeneen ñi nga xam ne dañ leen di noot tongali boo xam ne kenn du ko tongali Bougazelli tongali boo xam ne kenn du ko tongali xaw ma Omar Ñebbe Anne bi nga xam ne mais raasaatu na lépp lu nekkoon kudd ne kilo ñebbe quatre cinq cent la ko doon du ko tongali mbay Prodac ñaa kenn du ko tongali xaw ma Siré mi nga xam ne bi mu nekkoon xaw ma poste mais dafa fees poste bi sàmm ko lekk ko ba dara desutu fa kenn du ko tongale Aliou Sall suñu 400000 kenn du ko tongale Mansour fay mi nga xam ne mais kenn xamul li mu am ci alal te mu jëlee ko ci xaalisu d'accord askanu Sénégal kenn du ko tongali député yi nga xam ne d'accord ñooy trafic passeport diplomatique kenn du ko tongale d'accord ñi nga xam ne ñooy jaay drogue fii te Moustapha Cissé waxoon ci digg xaw ma assemblée nationale ne xam na ñi nga xam ne ñooy jaay drogue kenn du ko tongali ñi nga xam ne ñooy sàcc jiwu baykat yi état du Sénégal mooy ñun askan wi ñu génnee xaalis pour jàppale baykat yi ci ay jiw ñoom ñi nekk ci kaw ñu séddoo ko aaki moo ko sàcc ko détourné ko ñoom kenn du ñoom kenn du leen tongali ñun nag ñu foog ne ñun ñooy nooy neex yi nga xam ne ñun lañ ñun la ñu war a tongali duñu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg résistance résistance la ñu wax moo tax nag ñoo lànk ñoo bañ waaw du ñu nangu dootuñu nanguti ay jàpp ay ñëw ñu naan la taxawal ngay taxaw loolu dootul amati Sénégal ay ñëw naan manifestation bi dañ ko interdire ndaxte waaw Macky Sall daal nee na manifestation dootu fi amati dootuñu ko nanguti ndax xel war naa nangu ñun juróom-ñeenti organisation Y'en a marre Non Langue FDS Africa First nitu dëgg valeur FRAPP ak ñoom seen ñu tere seen juróomi manifestation yu teglantoo ngir naxar lu dund bu cher bi benn benn centrale bi nga xam ne ndem si yàlla Iba Jaay Jaay yi moo ko doon jiite muy CSA mu laaj na day manifester ñu jox ko ko ñu ñooy nooy neex yi loolu dootu fi amati dootuñu nanguti suñu manifestation ñu interdire ko ci yaama neex ci par parparloo mbokk yi waxoon naa ko naa ko waxaat devise du Sénégal mooy un peuple un but une fois waaye président Macky Sall dafa soppi bàkk boobu mu soppar ñi ko léegi devise du Sénégal maanaam bàkku Sénégal mooy deux peuples deux buts deux fois maanaam dafa am ñaari Sénégal Sénégal ñoo xam ne mën nañ manifester ak Sénégal boo xam ne ñooñu mën nañ laaj téeméeri yoon duñu manifester. Sénégal boo xam ne ñoom mën nañ am passeport diplomatique ak Sénégal boo xam ne ñooñu duñu mus a am passeport diplomatique ñooñu dañ leen wax ñu jël gaal gi ci géej gi ñu deefar ñu jël désert du Sahara ñu dee fa passeport diplomatique trafiqué pour certains la mort assurée dans la mer Méditerranée dans le désert du Sahara ou dans l'océan Atlantique pour la majorité. Deux peuples, deux buts, deux fois. Depuis le, depuis le mois de mais ñun waa FRAPP dañ ñu agressé woon le 5 mai ñani ñan ñooñu ñu ay samba boyu président ay voyous yoo xam ne président Macky Sall moo leen yebal parti woom moo leen yebal vidéo yi ñëpp gis nañ ko ñu agressé ñu depuis mois de mais ñu déposé suñu plainte mois de mais juin juillet août septembre octobre juróom weer suñu plainte bougé wul soxna soosu nga xam ne moo war waa Fouta Tampi déposé tey plainte ñu woogaa yi démb suba deux peuples deux buts deux fois benn askan boo xam ne bu déposé plainte du mujj fenn waa APR ak ñu ànd ak président Macky Sall déposé plainte ñu baral ko loolu moo fi jeex résistance la ñu wax dootuñu ko nangu ñun askanu Sénégal nañu fippu nañu résister béykat yi nga xam ne dañuy aaki moo seen suuf accaparement foncier spoliation foncière kenn du leen xeexal yéenay xeexal seen bopp ñu mel ni ñun te bëri nañ Sénégal ñu ànd ak ñu ànd ak yéen faj naxar faj gàcce ndaxte kat jooy fajul naxar de jooy fajul naxar président Macky Sall lu mu bëgg du ko am maanaam ñun waa FRAPP ñun waa Y en a ñun waa nitu dëgg valeur ñun waa No Lank ñun waa Africa First ñun waa urgence panafricaniste ñun waa FDS ñun waa ñun waa mu tëj suñu gémmiñ dootuñu wax mu damm suñu tànk dootuñu dox du fi am du fi am troisième manda du fi am ndaxte ñun dañ koy tere ndaxte constitution bi da koy tere président Macky Sall boo buggee jàmm boo buggee jàmm nanga xam ne li ngay yoot yëpp ngir museler lañu c'est vain maanaam dangay jéem rek waaye du mës a antu ndaxte lépp li ñu def muy sa samba boy yi ñuy yónni muy ñenn ci policier ak gendarme yi nga xam ne nangu nañ def la sale boulot di ñu jàpp di ñu gaañ di ñu toroxal lépp loo ñu mën a def na nga jàpp ne lenn rek la ab jiw la boo xam ne day gën a niit xelu askan wi ab jiw la boo xam ne day gën a leeral askan wi ci yow warkat nga président warkat nga président baakaarkat nga président boo xam ne nekkoo président Sénégal nekkoo président Afrique waaye président doxandam yi nga ak président sa bopp ak sa njaboot du fi amee de loo ñu mun ci def da ngay sonal sa bopp rek boo ñu tëjee boo ñu jàppee boo ñu garde à vue boo ñu reyee boo ñu dóoree boo yebalee ay samba boy say nervi yooyu ak yeneen ak yeneen na nga xam ne loo ñu def lenn rek la c'est une graine une graine que tu sèmes et une graine boo xam ne day jur yeneen Guy Marius Sagna yeneen Gérard Koita yeneen Fatima Mbengue yeneen Aliou Sané yeneen chat yeneen Abdou Karim Gueye Sine Mendy yeneen xaadim bu urgence panafricaniste et cetera et cetera yeneen Babacar jóg yeneen aji bëgg réew en réalité yow mag yi sàll xam nga li xew mbokk yi partagé leen partagé leen xam nga li xew li xew mooy ñun ci suñu liggéey bokk na ci li ñu tax a jóg tinki Sénégal tinki Afrique bokk na tamit ci li ñuy def mooy fexe ba askanu Sénégal ak askanu Afrique dootuñu ragal garde à vue dootuñu ragal kaso dootuñu ragal policier dootuñu ragal militaire dootuñu ragal gendarme donte dinañ leen respecté te loolu bés bu amee mot sëkk tiit jeex ñu fer ci tiit ñu fer ci tiitange ndaxte tiit moo war a jeex fii fii ñu war a tiit mooy yow président Macky Sall ñii war a tiit mooy yow président Macky Sall yow mi nga xam ne yaay parrainé la mafia foncière les gangsters fonciers les bandits fonciers les voyous fonciers spoliation foncière à Médina Wandifa spoliation foncière à Singer spoliation foncière fépp ak partout li ngay ragal mooy ñun lu ñuy def mooy face à ta politique de spoliation fépp spoliation partout ñun nous travaillons à ce qu'il y ait résistance foncière fépp résistance foncière partout loolu moo la tiital nga bëgg ñu noppiloo c'est vain du am tey du am ëllëg mbokk yi partagé leen vidéo bi léegi nag dama bëgg mu leer Gérard feebarul Gérard Aliou Gérard Koita feebarul Ousmane Wade feebarul Boubacar jàlloo feebarul Guy Marius Sagna feebarul Aliou Gérard koyta du ko xam ne day xaru Ousmane Wade du koo xam ne day xaru bubakar jàlloo namm na dund téeméeri at du koo xam ne day xaru man Guy Marius Sagna vraiment wax dëgg yàlla ku ma gis xam ne man duma kuy xaru waaw waaw amul dara luñ ma mën a def mu metti ma naxari ma ba may xaru déedéet dama bëgg muy leer feebaruñu jabetuñu AVC wuñu bëgguñu xaru lu ñu dal nag yow président Macky Sall yow lu ñu dal nag yow président Macky Sall yow suñu mbokk gendarme ak policiers yi nag laay waxal bëgg nañ leen loolu sopp nañ leen loolu te sonn ngeen ni ñun ndaxte dañuy jënd ceeb bu cher ngeen di jënd ceeb bu cher dañuy fay luwaas bu cher ngeen di fay luwaas bu cher da ngeen di fay facture ndox bu cher ñu ñuy fay facture ndox bu cher ngeen di fay facture courant bu cher ñun ñuy fay facture courant bu cher ba pare yéen vous êtes victime d'affectation arbitraire ñu ëpp ci yéen seen payoor yi matul te ndeysaan mënu leen yuuxu mënu leen marche mënu leen sitting mënu leen conférence de presse mënu leen dem émission xam nañ ne sonn ngeen moo tax saay bu ñu amee occasion wax duñ leen fàtte duñ leen bàyyi ginnaaw dañ leen di waxal waaye nag am na ñetti pomme de terre ñetti pomme de terre policier am na ñetti pomme de terre yu gendarme am na ñeenti pomme de terre yu xaw ma agent pénitentiaire ak ñetti pomme de terre yi xaw ma militaire yoo xam ne ñooñu ñooñu ay samba boy lañu et lu leen Macky Sall def ñu def ñooñu nag nous n'avons aucun respect pour eux aucun respect et aucune admiration ni aucune considération par contre vous les policiers dignes vous les gendarmes dignes et vous êtes nombreux vous les militaires dignes qui souffrez avec nous ngeen di torox ak ñun di sonn ak ñun te mënu leen wax waxuñu leen bu leen def seen liggéey jàpp leen ñu bu ngeen ñuy jàpp waaye bu leen ñu rey bu leen ñu gaañ yéen laay waxal de parce que nag am na fu muy toll chacun choisira son camp ni ngeen nekkee ay ndawu état man gii mari Sagna noonu laa nekkee ndawu état waaye état du ko def loo loo xam ne du dëgg du yoon yéen itam police yéen itam gendarmerie yéen itam milet yéen itam militaire yéen itam sous préfet yéen itam préfet yéen itam yéen itam xawma gouverneur bàyyi leen di def ay ord yoo xam ne xam ngeen ne du dëgg du yoon jaarul yoon àddina jaru ko dara jaru ko <clears throat> mbokk yi partagé leen partagé leen partagé leen lii moom la <clears throat> moom lañ leen bëggoon wax ah xaruwuñu feebaruñu lu ñu dal Macky Sall yow a mbokk yi jër ngeen jëf ba waxtu yi di ñëw dina leen jox ay xibaar yu bees merci beaucoup depuis la région de Kolda la délégation di FRAPP bi nga xam ne Aliou Gérard koy la Ousmane Wade <coughs> Ousmane Wade suñu personne morale jiite FRAPP Boubacar euh, Diallo nekk trésorier bu FRAPP ak man gii Mari Sagna ñu leen di nuyu di leen di sant di leen di wax ne tey dañoo am mbégte dañoo am mbégte ci waa Pakour dañoo am mbégte ci waa Sinthiou Faly ndax askan da ngay résister bëgg sa réew si jaamu yàlla la bokk bëgg sa gox si jaamu yàlla la bokk bëgg Vélingara ak Kolda si jaamu yàlla la bokk bëgg Thiès ak Saint-Louis Ndar ak Casamance ak Dakar si jaamu yàlla la bokk bëgg Kaolack ak Kédougou Salémata Saraya ak Fongolimi si jaamu yàlla la bokk fekk suñu bëggeel ci suñu gox ak ci suñu réew du noot doomu jàmbur si jaamu yàlla la bokk te tey dañoo am mbégte ndaxte dañoo gis des sénégalais dignes ñu nekk ay béykat ak sàmmkat yoo xam ne tàmm ñu gis grenade lacrymogène am na ñoo xam ne mosuñu gis grenade lacrymogène tàmm ñu gis ay gendarme yu bëri ba pare ñu leen di menacer di leen di tiire waaye ñu taxaw temm la lutte continue xeex bi dañ koy wëyal résistance résistance résistance fippu fippu fippu kuy bëree daan boo buggee daan dangay ngay bëre boo buggee daan da ngay bëre naam mun nga bëre te doo am ndam waaye képp ku bëgg a daan képp ku bëgg a daan foog nga bëre ay waleen ñu ànd def benn say ñu bëre jëlee fi suñu noon yii nga xam ne seen bakkan ak bakkanu doxandeem yi ma leen tax a jóg jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf nuyu naa leen bon samedi bon dimanche bon week-end la